jàmm. ah baro nga wax de. waaw baro laa wax. ah nga ma de. gañe naa la kay man maa yaay Fatou Sow Niang. Ah. muy wax nga dëgg wax nga dëgg wax nga dëgg. yow dama laa gëj a gis bi. waaw gis nañoo gise kay. yow de woote bi yàlla gën bu nit. waaw dama ne woon sax damay sol sama daal ñëw sa kër. waaw alaaji kalaame na ma ak yow. ma di bajaan it kalaame na ma ak yow. maanaam daal ci gàttal. famille bi regroupé wu noonu. jël kàddu famille bi jox ma ko pour ma wax ak yow euh, Sali da ngaa jël sa doom maye ko muy sëy ci kër gi ñor ñor ko nag pataluñ ko làggaluñ ko di ko wodd bu baax ba ku ko gis xam ni kii yor nañ ko waaye yow gisoo loolu ndax dégg naa da ngaa maye sa doom mu sëy si ba pare ngay lambar lambar di dama ko ñëw rek mel ni ku jël bëccëg ah déet jarulee jarulee man samay wax du ma ko nëbb du ma ko nëbb du ma ko nëbb déedéet man marraine la marraine li mu la bëgg a wax rek da koy wax mu daal di jeex da ngaa sëy nag ba pare bàyyil sa doom mu sëy bàyyil sa doom mu sëy lambar lambar gi ci kër gi laa bëgg mu dakk yaa ngi nii da ngaa sëy sëb sëy ba pare kon bàyyil sa doom mu sëy sëyëb sama dëgg nag man du ma ko nëbb moo tax ma ne woon dina bu ma la gisee dinaa la ko wax c'est tout. boo amee dëgg gooy wax danga koy yemale ci sa bopp fii sama doom moo fi sëy am naa droit du fi dugg lambar lambare dikk yow mi nga xamante ne dëkkoo fi xarit doom nga fi yaw yaa war a yem yow yaa xamul sa bopp. Oh, yaay yaay ni ku dër loolu nga ma tontu on verra on va le voir. Valencia. Mariama yow de sa bàyyi waxtaan naak man waaye li sa baay wax mooy dëgg sa baay nee na ma dangay bëgganteek benn waay jaral na la nag lu ne ndax yaa ngi dem di fekki waaj sa baay tere na la waaji ba sonn nga ni doo bàyyi waaj nekkoon nag ci yoon yow xale nga te ëllëg dangay ngay doone dara nit day xóor ëllëgam yow ngay gune gu tuuti tollu ci jàng ah njàngoo sa jàng mi ngay ngay ngay ngay ngay ngay wër jeune mi pour lan la ak foo ko teg ah man bi ma ñëwee ci kër gi ba léegi maa ngi lay suivre maa ngi lay suivre bu baax sa litt nga mel ni satu euh, bopp marle ah moom nga war a njëkk a dagg ah doomi nit ku baax nga nag doomi julit nga ab julit day xam ne doomi doomi julit la nga xam fi nga bokk xam famille bi nga bokk booy boobu ngay génnal sa baay nee na du la ko may ndax sa baay nee na dalaa jànguloo kon jéem a concentré wu ci sa étude yi defe naa moo gën di wër góor ñi góor ñi naa la xamal benn affaire de duñu takk kenn de duñu takk kenn dina la fen nag nee na dama lay takk début bi naa la dinaa la takk di la raay naa la dinaa la takk ah ba ba faaf yàlla fa ngeen ni mujjee ak ak moom du neex reculer nag reculer reculer waaw tu encore très jeune et l'avenir est devant toi waroo gàcceel sa baay waroo gàccel sa ndey ndax dangaa bokk ci askan bu baax su ma sañoon daal waa jooju ngay bëgganteel xaw ma da ngeen a amurante xaw ma bu yóbboo nga teg ko ci suuf waa kay dafoo jën a jàpp la pantangul la waaw. tonton Bara man defuma lu bon doxuma taxawaaluma. damaa nekk jigéen toll ci bëgg di bëgg damaa gis ki ma bëgg ànd ak moom di ko bëgg. Mariama loolu mooy problème bi. waaw Mariama da ngay da may waxtaan ak yow da nga may dégg nag dama ni. sa ji nga génnal laa ni booy boobu laa mi ngay génnal laa nga bàyyi ko ndax neexul sa bàyyi man ba tey néew ma la da def lu bon. waaw man dama yor sama xol di bëgg jigéen laa damaa toll ci bëgg yor sama xol di bëgg gis ki ma bëgg bëgg ko. yow da ngaa ci ci bëggante kon. waaw. yow yow yow yow rek laa def ma leneen noo defal ndànk gis nga euh, Mariama Mariama ñun ñun ñoo la njëkk a bëggante foofu ndax ñun ba ñuy bëggante ju duwoo doom dëgëre amour ñun ñoo ko gën a xam foofu bi ñuy amour ci kon yow saa mbëggee mbëggeel koy wax nii rek mais xamoo lan mooy le vrai amour mënu xamoo ko yow tollu xam nga lan laa lay man du ma wax ak gone mu may jàll baat déedéet du ma ko def. est-ce que dégg dama bëgg nga def li sa baay wax parce que sa baay moo ni ma naa wax ak yow c'est xam nga la laa la yëgal wax ji moo doy gis nga boo yoree say conseil yooyu joxe danga koy jox sa doom man du ma sa doom. dama tollu ci bëggante damay bëggante ba mu neex yoonu kenn nekku ci te sa yoon nekku ci c'est la dernière fois nga may ñëw naan ma fi ngay bëggante lii damay bëggante ba mu neex sa yoon man damaa waaru man tey nag laa jommi. waaw moo tax gàc gàcce ga daan mag jëkk njëkk ya moo suburootul booy yi léegi hmm. gàcce ga daan rey mag yi njëkk ya suburootul xale yi léegi xale yi léegi nu leen neex la ñuy waxeek mag gone gu tuuti gi kii ma génte ko bërki dem ma am tonto baro xam nga lan laa lay yëgal damay bëggante bu mu neex kii war na ma wax loolu ah waaw baax na waa baax na rek acca rek acca rek demal rek demal mais nag duma ma jaaxal parce que doom ja ndey ja ndey ji nii la mel maam nii la mel nii la mel baax na demal demal demal gars yi moom naa la xamal benn affaire dan naan la dama laa bëgg waaye da lay ootal rek ba enceinte la daal di daw na bu ngeen gisee ma woo leen damaa bëggoon ngeen fekkee waxtaan ndax kii toog gone gi di Seydou yàlla dafa dogal mooy doomu euh, mare ba ko jur sama ñaareel yàlla dogal xamuma ci woon dara mu nga nekkoon ci Côte d'Ivoire ñibbisi na yàlla dogal ba mu ñibbisee gisanteeg sama doom ji di Mariama bëggante dox seen diggante ah ma ko yëgee ma ne lii moom wax dëgg yàlla du loo xam ne dañu koy seetaan moo tax ma woolu ko tey pour mu ñëw fii ndax dëgg-dëgg moom doom la duma ma baayam hmm. te wolof nee na doomu jiite du doom waaye ah kay am na doomu jiit la yoo xam ne ñoo raw doom euh, tey jii nekk gi mu fi nekk bu doon sama sago mu nekk ci kër gi waaw ndax nit takk na soxna soxna si am doom euh, ndax nag ginaar boo ko bëggee danga koy bëgg ci cuujam boroom kër ga téye soxna sa téye doom ja def ca moom la war ba doom ja yor ay teraanga jël jëkkëru yaayam def ko muy bàyyam loolu gis nañ ko fi lu jeex du xaj kon daal ci gàttal lii taxoon ma convoqué daal mooy ñu waxtaan ndax dafa am mbir mi lu ciy ñuul mooy digganteem ak Mariam diggante boobu nag xool naa xool daal waaye diggante bi euh, man mantane moom Seydou ak Mariama ay mag ak rakk lañu looloo mën a dox ci diggante bi waaye sëy walla ngoro mënu cee dox moo tax ma woolu ko pour wax ko ko ngeen toog dooni seede Seydou sa diggante yaak Marème bis ni ki tey laa bëgg nga xam ne danga war a arrêté parce que mënu leen ànd du ngoro du sëy mu ngi noonu loolu daal moo taxoon ma woole ndaxte liw def moo la yëfi kilifa ginnaaw xool naa ba xam ne lii mënula nekk ah man de dama si ànd xaw waaw donte ñoom ñaar ñëpp nag say doom lañu yàlla def na ñu ngi bëggante waaye baa xoolee ba xam ne lii mënoo nekk nag ah, loolu nag boy ka ndaw ma la ñaan ngir yàlla bu mm-hmm. bañ a mm-hmm. ndaxte nit dala nite mm-hmm. nite gi moo la ña wax la lii mën la nekk unaña waaw mënoo nekk dem seeti keneen te lii sax njëkkoolëg fitaloog fa mujje mm-hmm. ndaxte àdduna li yàgg na fi u dem ba yàgg xam ne li mën la nekk mbag ñi waxtaan mm-hmm. waaw ña taxaw ba mën leen nekk nag mënoo nekk li bon mooy guddi ga dëgër bopp te loogu baaxul mm-hmm. comme alaaj Samba wax na nun nu ngi nii ginnaaw noonu ay wëlëreem gis na ne loogu mën la nekk bal forcé forcé baaxul ah baro mm-hmm. donoo ko mm-hmm. voilà mu bañ a forcé daal mu jëm a teg lépp si suuf rek mm-hmm. dem seeti feneen yàlla jiwul yàlla mën na kaa may sax keneen yàlla mën na kaa may keneen donc daal loolu moo ñu fa daal bañ a insister rek waaw dëgguma leen sax parce que yéen ay mag di wax xale di leen dagg maa ngi jégalu bu baax a baax waaye rek wax ci li ma ci gën a jàngat lu ëpp moom mooy sama diggante digganteeg Mariama mënul nekk loolu laa si gën a jàpp parce que moom a gën a affecté tamit fan yi dama bi ma sama yaay explique que li ma bokk ak Mariama ak que ni yow yaa ko yaay papam te aussi tamit yow yaay sa yaa jañ sama yaay dama dem si oustaz Abdou Aziz Ndiaye mu xamal ma ni ma diine may na la nga takk Mariama kon wéy la man kii kii Seydou bul bul insister bul insister yow ku dëgër bopp nga ndax gis nga saal bi ñu fi toog ñëpp ay kilifa la ni ñu toogi nii noonu la daan ànde bi ñu gone ba léegi wax ak yow waxi kilifa bu yoboo nga seeti umma islamique bi yëpp laaj ay question ci sa digganteeg Mariama mais bàyyi bii nga xam ni moo ko juróom nee na la nekk yéen ñaar mënu leen a sëy parce que sa sœur la maanaam sa rakk la yow def ko mag def ko rakk moom mu def la mag. nga baal ma loolu moom mënu ma yow itamit ngay insister tamit si loolu man pour man kii sa xarit la. non man insisté wu ma de non non. Euh, kii Seydou. Seydou damaa bëgg ñu ñu nga nga respecté ñu tuuti tam aussi. mënoon nekk wala defal ndànk rek defal ndànk ah, sekk bar ñi may ma tuuti rek sekk bar ñi may ma tuuti rek. may ma tuuti rek sekk bar ñi. dama bëgg a waaru kat. Euh, euh, Seydou jigéen bu dee mustur la sëy bu bàyyam taxawee bu ñu ko dee bu ñu ko dee may bu bàyyam taxawee nii kii du ma ko maye ku ko maye dagganul boobu it mënoon nga koo laaj sa ustaas boobu. man ko kolaaj bàyyi ma ngi nii moo ni mënulaa may mariama muy kàddu yu leer nañ te yow sax nag yow yow Seydou Seydou bul xeeb sa bopp fii fii fii fii li fii booy bel bari na nañu dëkk bi ay booy bel rek lañu ay xale yu bel rek lañu mais génnal nga affronté leen. désolé mais. non defal ndànk rek génnal nga affronté leen lii relation bi bu yaboo nga teg ko ci suuf moomatu la bu li insister yow dëgër nga bopp trop ku dëgër bopp nga kii sa sër la. waxu teg suuf ba nga xamee ne bëggante ngeen ba ba toog boobu ngeen waroon bàyyi xale yi bëggante seen bëggante te aussi ngeen toog si supporté leen boo ma wi Mariama conséquence bu si mënti nekk na nga ko subir. gis nga sama xol choisir na pare te Mariama la sa xool choisir na te Mariama la choisir man nag sama xol choisir xam nga lu sama xol choisir am na loo xam ne diine mën na koo nangu te jamono du ko nangu li jamono wax moom laa choisir dugal génnal soor dama na nga génn génnal très indiscipliné que l'indiscipliné sax allez ah moom mooy ah waaw dëgg boobu ah mënoo nekk waaw eh ndax mel ni que saaga est-ce que saaga lu ko daa daa insulté kay saaga na de eh, insulté saaga na nu de booy bi saaga na te ñàkk a jom te fa reewal maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw tey nag soo gisee ma ñëw fii ma dama ñëwoon pour jégalu si la ndax xam naa ne sax am nga ci ay écho muy kii nga xamante ne mooy sa soxna Fatou Soñaan daf ma doon fréquenté waaye nag ci biir loolu lépp mën naa laa seddal ni amul lenn lu ñaaw lu mu sa dox seen diggante ma moom ndax ni ma ko jàppee. ni ma jàppee sama sœur maa ami noonu laa ko jàppee daan na ñëw sama kër nag daan na fa ñëw bu baax waaye li ma la mën a xamal rek moom maa ngi lay jéggalu di nga xam ne lenn lu ñaaw rek musta dox suñu diggante loolu moo war a waraloon samay tànk tey fi sa kër. Euh, kii euh, euh, kii Joma ñaaw la. man la Ndaanaan. ah waaw waaw Ndaanaan waaw Ndaanaan tey wuy si woo saw tur Mm-hmm. doon daandaan mm, sa wax ji dara leeru ci sa jabar dafa ma doon fréquenté loolu ndaanaan dëgg du ko def waaw ma ni jigéen warul fréquenté góor rawatina nag mu am boroom kër nit boo dee ko fréquenté ba mu am jëkkër sax dagal fréquentation ba parce que jaadootul loolu borom xam-xam yi wax nañ ci ba sonn maa yi wax nañ ci ba sonn waaye yéen nag moom yéen yéene def lu leen neex rek di saboté li nga def nii tegoo ko fenn yow waroo woon a fréquenter jabaru jabaru jàmbur loolu du yoon loolu moom dama la koy wax parce que nag wax dëgg yàlla ñun ay mag lañu yoo xam ni il faut ñu leen di wax dëgg de dëgg nag du rom bi nopp jëm ci ndox ah, waaw waw loolu nag ñun dañ cee wax a wax a wax ba sonn ñun mag boroom xam-xam yi wax ci ba sonn sonn sonn sonn ulamaa yi wax ci ba sonn sonn sonn mais yéen dëgg na dëgër bopp xale yi léegi dañoo dëg jabari jàmbur ba fa la tudd jabaru jàmbur kenn du ko fréquenté jabaru jàmbur warul fréquenté kenn loolu yow yaa ko waroon a bañ bu fekkee ni li ngay woote mi ngi ci yow yow doo daan naana baro doguma la yàlla bu la dee dog wolof ñaay da jabaru jàmbur jàmbur ca du ca du ca kay te du ca ne abadan daay man ah oui yëg naa lépp ubbi samay bët di leen xool xamoon naa ni fi ngay mujjee xamoon naa ni ci baalu ngay mujjee heureusement ba nga clarifier situation bi bu ma amuloon lu may xool balaa lay dóor tip nga di këpp. ah jar na ko jar na ko jar na ko jar na ko jar na ko. ndax man laa laaj. te booba légitime défense la. légitime défense mais c'est pas grave comme que ñëw nga fi baalu man jullit laa kii c'est mon baalu nga ci kanamam baal naa la say audio say vidéo yëpp visionné naa ko amul dara lu ñaaw ak lu garaaw lu ci ne parce que dama laa sampoon yooyu yëpp mais baal naa la comme que ñëw nga baalu man jullit laa je man ko baal. kii ndaanaan loolu bu ko defati dégg nga loolu bu ko defati loolu xaram na loolu yàlla da koy tere bu ko defati jabaru jàmbur kenn du ko fréquenté dégg bu ko defati waaw ba jéggal nañ la nag waaye bu ko defati voilà. alaaji bu loolu lépp weesoo euh, kii di sa soxna maa amee dafa ma ñëw sama kër dénk ma say kayitu kër. salaamun xawlan min rabbi rahim. kayit nag ñu ngi nii. muy ba ma koy jox xamal naa ko ne ko alaaji fàttewul kayit gi mu la dégg ndax kayitu kër kenn du ko dégg di ko fàtte danga xam ni nag lépp loo ci nar na rafet ndax alaaji yor la yow kese ci njaboot kayit gi nag moo nekk nii. salaamun xawlan min rabbi rahim. ay alaaji mi ay alaaji mi alaaji nit day ñàkk boppam yaakaar nga ni lii jaadu na kilifa gu ton di yow. war a jël sa kiitu kër gi denc ko muy tambambalu mu ci tambambalu ba naral mi di ci jot ah yow yow yow yaa sàggan Baro sàgganuma Baro li stratégie la woon maa ko tey kayit yi du original photocopie la non légalisé maa ko def exprès jox ko ma ami parce que situation kër gi doyoon na waar moo ko sooda ma man ko ko bëgg ko calmer yow amoo ay jabar amoo ay jabar say jabar kenn baaxu ci ndax lii lii mooy àddina de lii nit liggéey na ba sonn te amu ko kayitu kër gi billaahi barke yoon ci yàlla Mamadu mhm. yàlla dogal nag yow nga am sa kër war a denc sa kayitu kër di ko jox say jabar di leen ko dénk ba mu yegsi ci ci ndaanaan mii ndaanaan mii ndaanaan mii war naa indi kayit kii original photocopie la wax naa la ko alors luy problème bi. waaw kon booy. Hmm? jógal. baax baaxul daa bon naan baax na ñun suñu yoon daal ci bu bonee. waaye nag yow da ngay sama xarit. dëgg di sama doomu ndey. Hmm. alaaji def lan lu ne mag gis nga mag. Hmm. day ñàkk boppam. dëgg naa dëgg. alam tora kay fa nga wax. bu ëllëgee. Mhm. na nga ñàkk sa bopp. gis nga booy bi day woote ndaanaan waaye moom du ndaanaan te jegewul ndaanaan xam nga mooy kan. Mhm. mooy Alaaji mi man maay ndaanaan kulli fiddin xam nañ ne Alaaji ay ndaanaan. gannaaw nag original baa bañ dogal fekk la ma teel la. bay bay bay bay bay bay teggi teggi teggil teggil teggil. ah alalu golo ca <laughs> <laughs> <laughs> dama la doon teel rek. jëm ko teel naa ko.